mbokki internet yu DKR 221 dal leen ak jàmm ginnaaw aw laaj woo xamante ni Cheikh Hadjibou Soumaré dina koy laaj état du Sénégal loolee moo waral di koy woo ca sûreté urbaine bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar jàppale ni kii di moom daal dinañu koy convoqué ngir mu daal di ñëw wuyu si li nga xamante ne nag moom moo di boobule convocation moom mi nga xamante ni sax daal dinay taxaw ne candidat la ci élection présidentielle yu atum 2024 yi ñu dëgmal Cheikh Hadjibou Soumaré ak ginnaaw bi nga xamante ne nag nee nañ bu dellu fii ci diiwaanuk Sénégal war naa ni nag moom moo di convocation googee enquêteur ya nekk ci sûreté urbaine daal di koy convoqué ni gën ni tey ci bu dix heures jotee ki fi nekkoon ancien premier ministre nekkoon fi ilimaanu jëwri mi jamono jile nak mu nga ca diiwaanu ko Dubaay moom ak famille am waaye suñu sukkandikoo ci presse Afrique mu ngay xam ne nag daal ne moom war naa ñëw ñëw gi nga xamante ne war na kaa ñëw ci diiwaanu Sénégal ngir daal di jàkkaarloog ay avocat wam buñ ca noppee rek mu daal di dem ci sante ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di enquêteurs ya nekk ci sûreté urbaine ndaxte nag boobule convocation jàppaleen ni jot na ci te daal di nañuy def décharge juge bi convocation boobee sax nag li ko daal di waral du lenn rek lu dul kii di Cheikh Hadjibou Soumaré moom dafa daal di posé ay question yu bari état du Sénégal ca question yooyee nag mu daal di ciy xamle daal ne xam da ci milliards de francs CFA ci ab dëkk woo xamante ni nag ñëpp xam nañ ne ñun ñi ab pays bu deltu ginnaaw lañ daal di pauvre suñu wàlluk ndóol fu ko waaye tëkk weesu na ko waral na ba jamono joojee ñu daal di bëri ay bor loolu ba xam koppar googee da kaa daal di may ko ki nga xamante ne nag moom moo di Marine Le Pen Marine Le Pen moomee moom moo daal di nekk ca kujjeg politique ca diwaanuk France tey xeex der bu ñuul ñëwoon fii ci kii du njiit la République Macky Sall di koy dalal ginnaaw laaj googee nag nga xamante ne daal dina koy def jàpp leen ni nag bi ci kaddu ki nga xamante ne nag moom moo nekk porte parole gouvernement bi di Abdou Karim Fofana moom nag daal dinay jóg condamné li nga xamante ne nag moom moo di kaddu ya nga xamante ni kii di Cheikh Hadjibou Soumaré daal dina koy laaj mu daan ne ko yow jamono jile ab lâche nga ne ko déet waay mu daal ne ko waaw ndaxte nag li ngay def euh, mooy la république Macky Sall waaye tamit lépp lu jëm ci wàllum ak li ngay def fii ci diiwaanu Sénégal doon na lu ñaaw te yow ba nga fi nekkee ilimaanu jëwriñ li nga doon def moo gën a yées lool li nga xamante ni yaa ngi jël di ko tuumaal njiitu réew mi ak gouvernement du Sénégal waral na nag ba waxtu boobee bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar kii di Cheikh Hadjibou Soumaré war naa dem jàkkaarloo ak enquêteur ya nekk ci sûreté urbaine